assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi noo ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yenentam ba sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaan yàlla mu defal nu jàmm ci àdduna defal ñu ko yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit bokk yi tey sunu fàttali mi ngi jëm ci benn qissa boo xam ni mi ngi amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xissa bi ci benn xadis lañ ko jëlee li tax ñu bëgg ko fàttali mooy du ñàkk incha allah gannaaw xissa bi ñun ñépp ñu ànd jariñu ci incha allah li des ci sunug dund xadis bi ñu ngi ko jëlee ci abu hurayrata yal na ko yàlla gërëm abu hurayrata nee na benn bés yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jiite saxaaba yi jullik suba ba àggal xam nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu daan jiite julli ba noppi day wëlbatiku wan janook saxaaba yi def seeni baqiyaatu saalihaat ba àggal bi loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wa xool ci mbooloo mi ndekete mbooloo mi bilaal ibnu rabax mang fa mu bokkoon ci saxaaba yi yàlla na ko yàlla gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bilaal dama bëggoon nga wax ma ci li nga jot a jëf ci lislaam jën jëf nga ci gën a yaakaar ci mu rëy lool ci kanamu yàlla mu ni ko ndax kat dama dégg sa yëngu-yëngu dàll ci biir aljanna xam nga nit ki suy dox dàll yi day yëngatoo tepp tepp tepp tepp yonent bi ne ko sa teppi teppi dàll yooyu dégg naa ko ca biir aljanna dama bëggoon nga wax ma jën jëf nga jëf ci lislaam te gën koo yaakaar ba am lii nga am tey nga ko de bilaal yàlla na ko yàlla gërëm ni ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa man day jëfuma dara jëfuma dara lenn de la yaakaar lenn rekk laa yaakaar ne jëf naa ko ba am loolu loola mooy man daal seetlu naa ci sama bopp ni saa yu ma jàppoo balaa njàpp toj dinaa ci julli lu mu gàtt-gàtt ñaari ràkka ngir ngir yàlla subhaanahu wa taala su ma jàppoo balaa njàpp laa toj danaa ci julli lu mu gàtt-gàtt ñaari ràkka ma def ko ngir yàlla sama diggante ak sama borom rekk laa koy def nag loolu day rekk laa yaakaar ni maa ngi koy jëf ci jëf ju baax ci lu ma yaakaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko kon de loolu la kon de loolu la xadis bi buxaari yu ak muslim yépp solo nañ ko kon mbokkum jullit lees mën a jànge ci biir xissa mooy xoolal jëf ji nga xam ni nuroo na jëf ju néew lool lool lool yàlla yëkkati ci ay garaatam ak i dara ba mu am kër ca aljanna ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko ko wax ci jëf ju woyof lool information ci àdduna gënuta rëy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni la dégg naa say tànk ca aljanna loolu xabaar gënu koo rëy kon kuñ ko xabaar rek am nga li gën a rëy ci àdduna la gën a rëy yowmal qiyaam mooy tabbi aljanna te bilaal am na ko ndax informé nañ ko ko ci jëf ju woyof loolu mbokkum jullit kon lan mooy sunu taxawaay ci loolu ñun loolu mooy bépp jullit bu nekk war nga góor góorlu ba jël jenn jëf fasante kook yàlla kóllëre ni jëf ji maa ngi koy def sama diggante ak sama borom ngir sakku ci ngërëmam mom yalla ku nek war na koo def te lu meuna nek nekk la bu ñu neexee jël li bilal jël roy lu bax lu am solo la kenn ku ci nek mën na wax ni sa yuma ma bala japp la toj dana ci julli ñaari rakka def ko ngir yalla mu yam sama digënté ak subhanahu wa taala duma ko wax kenn ndax yoro kenn nekut ci wala nga ni man day sa yuma ma suba bala ma genn sama nek danaa jàng benn isibu alquran wala benn feuille alquran ngir sama diggante ak yàlla yoonu kenn nekkut ci walla nga ni man day bés bu ma xëyatee danaa dem ci kër ñu ñàkk ñële fexe ba jox leen luñ mën a añee tey ma def ko sama diggante ak sama borom kenn du yëg kenn du xam wallahi alazim mbokkum jullit jëf yooyu li muy néew néew néew néew néew mën naa yëkkati sa daraja ci kanamu yàlla ëllëg te mën na laa tabal aljanna te yow nga jàppee ko woon ko lu lool xolal ñaari rakka yi bilal saso won bopam sa yu ko bala mo toj mu julli ñaari rakka sun borom defal ko lu melni kenn ku nek man nako am ci jëf yi ngay jëf sa digënté ak sa borom mu nek nafila kenn du yek ta bilal yag na ko def kenn yegul budul won liko yonnati bi alayhi salatu wassalam informé kenn du ko xam day yam ci digënté mak yalla bu la nexé mbokum julit man nga ni wër wu jot dana yëkëti ben téméri dërëm yobbu ko ca jakka ja mu bokk ci liñu defar ci jakka ji sa digënté ak sa borom man la yëkëti ëlëk ëllëg qiyam wala nga ne kat man day danaa fexé facture courant bu jot danaa fay facture jakka ji sama digënté ak sama borom rek la yam wala nga ne daara jëlé day danaa fexé wër wu jot ma yobbu fa benn bolup ceeb ñu ko ngir sama digënté ak yalla mu yëkëti sama daraja ca kaw ëlëk yowmal qiyaam lu mëna nek la mbokkum jullit kon nak lolu moy xissa bi ma bëgg koo fàttali ñun ñépp ñu bokk dégg ko gannaaw bi kenn ku ci nekk boo toogee sa kër nga jël jenn jëf doxale ko sa diggante ak sa borom ngir sàkku ngërëmam ëllëg yowmal qiyaam lu mën a nekk la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na laa tax taxqiranna min al maarufi shay'an nee na bul xeeb dara ci lu baax loolu ba mu koy wax nag lépp la loo xalaat ni lu baax la mënees na cee amee yiw ci kanamu yàlla def ko ngir nga sàkku ci ngërëmal suñu borom lu mën a nekk la nit du def dara ngir yàlla perte ko yàlla nee na fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara ku def lu tuuti tuuti tuuti ba toll ne fépp suuf ci lu baax yàlla mu ñu danga ko fekk ëllëg yowmal qiyaam te danaa la ko fay kon nag mbokki jullit yi yàlla na nu yàlla xiirtal ci lu baax yàlla na yàlla subhaanahu wa taala nangul ñu suñuy jëf ak suñuy góorgóorlu jéggal ñu mboolem suñuy njoomte yàlla na nu yàlla defal jàmm ci àdduna defal ñu ko yowmal دفالكم بولم جلد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته